xam leen naka diine yemboo na sa moom mag ak ndaw góor ak jigéen jàng ngeen waxukati aji kawe ni ki jullit yu góor yi ak jullit yu jigéen ñi ak waykam yu góor yi ak waykam yu jigéen ñi ni ko aay ci waxe jigéen ñaa ki ànd ak góor ñi di xëñtu lislaam tey te yow yaay ki xalaloon yoon wa ngir sàmm dénkam ba ba waral jigéenu akhlulahi, yi fu ko tuddee yalla ñu tuddu fa yalla fu ko jàngee ñu jang fa Alquran, fu góor ñi deme sa jakka ja ñoom ñu dem sa jakka ja ba lepp la nga xamne diine digle na rek ñu and sa ak góor kem ni ko yalla diglee ci téereem